أعوذ بالله الشام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن أمر بتسبيه في محكم تنزيل بتسريحه ثم سلاما على من شبهت في كف العصاة تسبيحا سبت وآله وصبه المسبهين الحامدين مؤمن كلهين وبعد asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal àq di ko sàkku ci yéen bisimilah. ba fii ci jokkul xeer euh, ci wetu jumaay njaayeen bi fekk fi góor yàlla bi ñuy wax sëriñ Abdoulahi Seen al Ixlaas laata ma yaatal rek sëriñ Abdoulahi Seen al Ixlaas lan moo waral lool sëriñ Abdoulaye. <laughs> muy lu am lu solo macha allah. Mhm. muy lu am am solo suñu borom daf ñoo euh, bëggloo saar wu am solo woowu nga xam ni euh, suñu kilifa gi radiyallaahu anhu Sëriñ Tuubaa da koo bëggoon lool sax nag muy lixlaas mhm. nga xam ni wax na ci ay mbir yu bare bëri ci Ixlaas sax nag euh, bëgguñ ko bëgg nag euh, waraloon nit ñi dañu dakkantale Cheikh Abdoulahi seen al Ixlaas kon suñ <laughs> daam ñuy dakkantale Abdoulahi Sène Ixlaas. Ah, alhamdulilah jërëjëf suñu Abdoulaye. Euh, waaye nag ma dikkaat ak yow nag ci dëgg-dëgg yi sax. liggéey bi. ku gis yii suñu ginnaaw xam ne. ñëw nañ ci barab boo xamante ne. barab bu ñuy ñaanee la. Mhm. barab yi boo xamante ne mhm. ay góor yàlla ak i jaam suñu borom dañ fi ñëw di fi sàkku ci mhm. euh, lan mooy li nga xamante ne nii tey moom lañ di fekk si sëñ Ablaye ci wàllu fajub cosaan muy lu am solo loo xam ni lu mat a leeral la mhm. waaye lu mat a xam la itam euh, euh, fii nga ñëw tey muy béréb boo xam ni suñu borom dogal na ñu di fi dimbali jaamu yàlla yi ci lu aju ci seen yaram wér di yaram Mhm. xataa sax seen diine islam ndax bari waa na ñoo xam ne dina am lu ñu ëmpul ci seen diine ñëw yaakaar ñu gindi leen ci diine mhm. waaye itam léegi itam nit ñëw euh, yëg tawat ci yaramam ñëw mhm. ñu teg ci yoon woo xam ne incha allah su fi jógee rek day daal di yëg ne wax dëgg yàlla daal la fi nekkoon nekkatu fi macha allah macha allah sëñ Ablaye ci sa biiri wax wax nga ba wax yaram ku wax yaram nag xam ne léeg-léeg dina sutante léeg-léeg nga am foo jaar mu mel ne barab bii ñu nekk nii. bokk na ci barab yi ngay jaar léeg-léeg. ba suñu borom def ci euh, li nga xamante ne nii moom mooy sutura. mu mel ne ku wax yaram yit am ay fee xeeti feebar yoo xamante ne léeg-léeg la koy gane si. te woote bi nag dafa mel ne bari na de. naan maa mën <laughs> dafa mel ne fii nii mel na ne lu bari euh, léegi nag. mu bëgg nag dugg dëgg dëgg dëgg waxtaan bi ndax. bëgg naa ñu feeñal ci ay mbir yoo xamante ne mhm. léeg-léeg nga jaxasoog nit yaakaar ne moom la fekk du moom mhm. léeg-léeg nga ñàkk jaxasoog nit mhm. ndax am foo jaaroon ba yaakaar ne du moom fekk moom la mu mel ne feebar bi ñuy wax feebaru jabet wala ndoxu siti wala toppum siti hémorroïde yooyu nan nga def ak moom sëñ Abdoulaye émouride di loo xam ne ñëpp xam nañ ko fi wala ñu bari xam nañ ko fi ci kër ji bari waa na ñoo xam ne seen émouride génnoon na muy feebar bu doy waar boo xam ne dina sànq doomu adama sax nag ba ñu jàpp ne leneen la woon te fekk déedéet émouride dong la am na ñoo xam ne am nañ amee nañ ko waaye xamuñ sax leen dal lan lu mu doon euh, muy ñaari façon nag émouride mu ngi mel ni nga ne diw dafa amee loxo bi métti rek mën na doon baaraamu sànqlañ bi hmm. mën na doon baaraamu joxoñukaay bi mën na doon baaraamu jaar bi mën doon baaraam bu mu mën a doon itam tànk loxo bi wala tànk baaraam bi kon hémorroïde cër la boo xam ni su tawatee mën na am effet yu ma def ci doomu aadama mooy euh, muy seere seere gu metti seere gi mën na jur ndig liy métti tànk yi dem bay nagam bopp bi métti waaye itam mën na jur mu dem ba am picc boo xam ne fu muy demee toilette dafa am euh, picc bu fay nekk boo xam ne day faral di génn mën na dem ba bay tuur deret su demee ba toll ci dimension boobu nag nit ki mën na dem ba sax sa karam day dellu day néew kattan lool sëy sax dootu ko yitteel. yooyu yëpp nag euh, su nit ki ñëwee ñu laaj ko. Euh, dañ koy déglu. Euh, su ko defee ñu xam ban yoon lañ koy defal traitement boo xam ne incha allah su fi jógee moom. Mhm. day yëg nii la fi nekkoon nekkatu fi dañ. est-ce que li jëm ci wàllu jabet nag duma ko faj. Mhm. ndax dama ci amul xam-xam mhm. yàlla dogal na ñun dañoo bokk ci ñoo xam ne mhm. ñu ne waaw rek waaw la waaye jabet moom amuñ ci benn xam-xam moo tax duñ ci dugg duñ ci faram-fàcce leen ndax awma ci xam-xam topp mu siti itam noonu la demee dañ koy traité nit ki moo xam yaram mi day tàng moo xam yaram day xesen moo xam bët yi xesen mu ci mën dañ koy defal traitement boo xam ne incha allah rabbil alamin euh, su ko respecté rek euh, euh, te bañ a yàkkamte ndax am na ñoo xam ne feeb wéré di benn ci ñoom dafa yàgg lool ba tax na ñaari fan ñetti fan ay lay wen du tax mu dañ kon day dop traitement bi rek ba lépp daal di saafaru mhm. suñu daam kon daal loolu moo lañ ci mën a leeral jërëjëf Serigne Abdoulaye si tontu bu am solo bi nga xamante ne leeral na li nga xamante ne nii moom mooy toppum cité ndax ay traitement lay doon leeral na ko beneen bi si dooleeku it ñu laaj ko ci wàllum jabet mhm. te it bariwul ñi nga xamante ne ay boroomi fajkat lañ mhm. di la wax ne lii mënuma ko amaana da ngay jaxasoog ñoom dem ba sori rek yëg ne lii ñoom mënuñu ko waaye nag fii day wane ne rek li ma leen doon junj léegi dikkat na ci li nga xamante ne moom mooy wax ji mooy fasuñu leen a joxoñ koo xamante ne da ngeen di jëflanteeg moom ba noppi di rus te Serigne Abdoulahi seen Al def na ay résultats ci wàllum faj ba tey ñu mën koo dékk suñu micro ngir mën a yaatal ak moom ci lu mel noonu kon euh, Serigne Abdoulaye damay ñëwaat ak yow ci lu mel ne asthme ndax bari na ay ndaw yu mu solal. Mhm. ñu siy dem fu ne yow nan nga def ak asthme. voilà euh, asthme suñu borom dogal na dañ koy bokk na ci feebar yu ñuy traité ñun. Mhm. asthme nag xam nga am na ñoo xam ni eh, yàlla dogal dafa dogal nii ñoom su leen dikkalee su leen daaneelee mhm. dañuy fat. dañuy fat am na ñoo xam ne sax du sëqat. lu bëri mais dañuy fat rek fat mooy seen problème. kooku itam dafa am traitement bu ñu koy defal. mu am ñu koo xam ni euh, day sëqat guddi gi day sëqat ba day mel luy wocc sax nag mm. kooku itam su ñëwee am na traitement boo xam ne moom lañ koy defal moo xam xool nañ atam nu mu toll su dee mag am na traitement bi nu muy demee mm-hmm. dosage li ñu koy jox mm-hmm. su dee xele bu ndaw yi tam am na dosage bi moo xam ne moo nañ koy dosi ba xam ni mm-hmm. dina ko mën a jëfandikoo te du ko wàññi dara ba incha allah mën na saba su fekkee teel na ñëw ci ñu moom mën nañ ko faj mu wër jërëjëf sëriñ Abdoulahi ci ci ci ci tontu bu am solo boobu Euh, sëñ Ablaye ba tey damay dikkaat ak yow ci beneen laaj. Mhm. muy li nga xamante ne sonal na ndaw ñi. Mhm. muy néew kàttan. Mhm. te bu njëkk mel na ne. Euh, boo ko daan dégg rek amaana ci mag nga ko daan dégg wala yu deme noonu. waaye léegi nag mën naa ne daj na jamono. muy néew kàttan. ndax loolu it bokk na ci tawat yi nga xamante ne ni moom ngay traité fii. waaw muy lu am solo. loolu nag dafa am euh, lu koy sabab. Mm-hmm. am na xeet yoo xam ne mooy sabab néew kattan goo xam ne léegi lambee na réew mi mm-hmm. am na ci yoo xam ne dundun gi la façon dundin gi ñuy dund euh, te du xool lu ñuy dund lu mu doon mm-hmm. bari na saf safal yoo xam ne du ma bëgg a mais ni damay attaqué ñenn euh, yoo xam ne day sabab loola am ñoo xam ne itam yàlla dogal na bu ñu nekkee ndaw itam dañ dañ doon ballu dem ba xëy na dinañ ci ñëw dem am yu ñu àndandoo ba tax ñuy fooy seen kanam ba sidit yooyu nga xam ne ñoo saytool sacré bi dépp néew kattan am ñoo xam itam dañoo am àndandoo ba tax euh, ñu néew kàttan kon lay waral néew kattan bëri na lool lool lool lool sax waaye lu mu ci mën a doon moo xam euh, rab la moo xam euh, nit ci boppam moo faiblesse moo xam njabar la moo xam lu ci mën a doon incha allah suñ ci ñëwee am na traitement bi ñu koy defal boo xam ni. Euh, macha allah te am na ci po yoo xam ne sax gars yi ñu ngi koy coow ñoo ko tuddee gaynde gi hmm? gaynde gi lañ ko tuddee mooy toj na dëkk bi ah, gaynde gi daal moom <laughs> macha allah ah kon daal kooku euh, beneen bi si dool dool léegi it mooy mhm. euh, ginnaaw bi ñu duggee ci li nga xamante ne nii mooy néew kàttan mhm. ndax am na fi it mel na ne junj nga ko mhm. muy yoo xamante ne day day day xorom la ci biir kër ndax yooyu it dinañ koy faral di jëfandikoo fii ci kër gi. mooy gaynde gi. gaynde gi moom. ña ko doon jëfandikoo sax ñoo ko tuddee gaynde gi. est-ce que damaa jékki-jékki ne suñu daal lii daal. bari naa ne ci ñoo xam ne ndeysaan seen mhm. kër tasoon na. Mhm. ñu ne ma ah, soxna si kat nee na day dem ma ne ko li xew mu ne ah dugg na fii génn na fii am nu mu waxee. Mhm. ma ne ko seet si ma mu ñëw. bañ jëflantee Euh, ñoo ma ne lii daal dañoo bëgg nga tuddi ko gaynde gi est ne ko lu ngeen ci jublu mu ne waaw man daal ko gaynde gi daal ndeysaan waaw kër gi daal lépp jàgg na ma uh-huh. xam ne kon moo tax po yi di ko tuddee gaynde gi même soo ci yu bëri uh-huh. gaynde gi koy tuddi est-ce que fii la nekk nag gaynde gi jëfandikoo mm-hmm. waxuma la am kattan mm-hmm. mais da lay da lay jox euh, euh, beneen wiir gu yaram maanaam boo xam ne mm-hmm. amoo ko woon moo xam émor bu mu fekk ci yaram da koy dindi day dindi topp mu si même prostate da koy dindi nga xam ne soo koy jëfandikoo Euh, daanaka dix huit ans dix neuf ans rek allah <laughs> est-ce que est-ce allah. ah loolu daal mel na ne kon lu am solo la. am na fi am na fi kon ñu ngi leen di bàyyi loowaat xel yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy bàyyi xel. Mhm. Euh, ngir loolu lépp ci ay njëriñ mu ngi làmboo fii nga xamante ne nii mooy kër sëriñ Abdoulaye seen Al Ikhlas. Mhm. kon mbokk yi dañuy dem régie rek. Mhm. xool benn élément. bu ko defee ñu dikkaat ak yéen ci seen émission incha allahu rabbi. léegi bañ dara dootu ko métti bopp bi dootul métti mën naa problème boobu mais day fekk nga tuub ba bi dootul métti dara dootul loolu nangu naa waaye pour bàyyi la nii tuub ba nga ne ci lu yàq man ma ko loolu du ma ko nangu fekkee pare nga pour tuub te muy dégg coono may wax tuub naa ñu tuub ñu waxtaan léegi ñu bàyyi nga bàyyi bopp ngay métti man lu ci des garaaw bopp bi dootul métti ah. lu mu loolu de dama ne bopp bi. di nga ko bàyyi mu métti ah boobu dina arrêté ah du arrêté day xel di métti boobu da nga ko xel di métti voilà léegi laa bëgg a dégg bon da fi bii tam day xel di baatale saa su ne day xel di tiit wuyoo ma de dama ni bopp bi dina dina sedd wala du sedd. yow lay déglu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله والذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أشهر هم فيها خالدون الله والذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أشهر هم فيها خالدون الله والذين امنوا يخرجون من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياء من الظلمات يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك الشر هم فيها خالدون الله والذين امنوا يخرجون من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياء من الظلمات اولئك الشر نار اولئك الشر نار أولئك أشهابنا هم فيها خالدون أولئك أشهابنا هم فيها خالدون أولئك أشهابنا هم فيها خالدون أولئك أشهابنا هم فيها خالدون أولئك أشهابنا هم فيها خالدون أولئك أشهابنا هم فيها خالدون أولئك أشهابنا هم فيها خالدون أولئك أشهابنا هم فيها خالدون yaami yaami laajal لا ko ndax xal am na foofu ma suur ko أعوذ بالله لا الشيطان بسم لا الرحمن الرحيم لا الذين يؤمنون لا والذين كفروا لا مطاعون يرجون لا النور إلى لا أولئك أشرارنا لا فيها خالدون لا أشرارنا هم لا خالدون أولئك لا ميك ريسو لا ديجنا ميك لا أولئك أشرارنا لا فيها خالدون لا أشرارنا أولئك لا أولئك ها لا أولئك أشابنا هم فيها خالدون أولئك أشابنا هم فيها خالدون أولئك أشابنا هم فيها خالدون أولئك أشابنا هم فيها خالدون أولئك أشابنا هم فيها خالدون أولئك أشابنا هم فيها خالدون أولئك أشابنا هم فيها خالدون أولئك أشابنا أولئك أشابنا هم فيها خالدون أولئك أشابنا هم فيها خالدون أولئك أشابنا هم فيها خالدون jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ne yéenay teewlu seen émission cosaan Euh, mu ngi noonu kon ñu ngi jaajëfal waa régie bu baax a baax a baax ci élément bu am solo boobu nga xamante ne moom la ñu indil ba tey mbokk yi yéen a ngeeg sëriñ Abdoulaye Sène al Ikhlas nekk fii si yi xeer euh, jokkul jokkul xeer nekk fii ci wetu jumaa ji nga xamante ne sorowul dara ak li nga xamante ne moom mooy jumaa ji kon ba tey dañuy wéyalawaat ak yow sëriñ Abdoulaye Sène ci laaj yi nga xamante ne nii moom la ñu war a ànd ak yow ñu bëgg nag jublu ci li nga xamante ne léeg-léeg day yàq dundub doomu aadama ndax nit ki mën nay dund ñëpp am ci moom yaakaar ñu dem ba yàgg rek ñu ne dañ koo sànni kort wala dañ koo liggéey wala lu mu yoroon du taxaw ci loxo bi sëñ Abdoulaye Sène muy cat muy muy muy yu demee noonu nan nga def ak loolu sëñ Abdoulaye Sène alhamdulilah bi xisati wa muy lu am solo mm-hmm. cat nag xam ngeen ni Euh, yàq gu muy yàq mm-hmm. moo tudd cat mm-hmm. maanaam tooke bu muy def mm-hmm. lañ tuddee cat mën na bàyyi ko ci lamiñ nag waaye mën na bàyyi ci bët moo tax ñu ne da ngay dégg naan euh, cat ak làmmiñ ak bët du du du comprendre nu mu demee cat da ngay ne ah lii de cat la am na cat yoo xam ne ci làmmiñ lay jógee muy lu ñu tudd am cat yoo xam ne ci bët lay jógee muy lu ñu xool setanil ko euh, ba gis nga sax Ahmadou Bamba radiyallahu ba muy ba muy muslu sax mu ngi njëkkee sax nag ci ko soxor ku iñaan mhm. koo xam ne dëgg-dëgg daal sa noonu la saa su ne mu ngi xool rek ni ngay defee quatre appuis wala cinq appuis wa kun mu'izan lana min sharri hasad mhm. maa sharri fami wa sarian wa sari sihri wa mhm. sariqil si mati gis nga soo xoolee itam même même alxuraanu karim xam nga Ahmadou Bamba du te alxuraan même alxuraan soo xoolee ba muy muslu hmm, da dafa jëkkee ci kiñaan wa min sharri hasidin isa hasada gis nga. Mhm, mhm. ba tax na sax euh, soo xoolee bayt yooyu mu wax léegi juróomi sini tooy moo ci ne soo demee falax naas juróomi sini tooy la. Mhm. ba tax na kon ñun su suñu kii ñëwee nga xam ni la la ko arrivé maanaam la ko dal yëpp cat la. incha allah rabbil alamin am na càngat yu ñu koy jox yoo xam ne su ko jëfandikoo rek. Euh, day daal di dañ waaye cat daal nekk na loo xam ne lu mat bàyyi xel la. te bëri na ñoo xam ne la la leen catu ci ñoom la jógee ñoom ñoo ko sabablu moo xam la ñuy la ñuy publier ci réseaux sociaux yi mhm. moo xam statut yi ñuy def mhm. moo xam télévision yu ñuy dugg te du ñu ut ay kaaraange lu mu ci mën a doon doon nag mhm. cat mën na tukkee foofu yëpp nag kon dañuy bañ a guddal lool waaye dëgg-dëgg lambee na réew mi daal macha allah kon mu ngi noonu mbokk yi di leen wax ne euh, nit ki sax mën naa catu boppam waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne mujjunteelu jamono bari waa ñoo xamante ne nii ñu ngi wàcc liggéey te bokk na ci li leen yóbbu rek muy cat cat kon cat lu am la euh, mel na ne it fii boo fi doxantoo insha allahu rabbi boo jëflanteek góor yàlla bi sëriñ Abdoulaye Sène dinañ fexe ba yooyu yëpp nga taxalikook moom ma ma dikkaat ak yow sëñ Abdoulaye mu mel ne it euh, ci biir loolu lu mel ne jigéen ju taxaw dem ba yàgg mënatul am tu tànk ndeysaan euh, muy lu tiis nga xamante ne léeg-léeg mu ne ci barab xat fa lool mhm. te yu mel noonu rek di ko waral ndax loolu it bokk na ci li nga xamante ne nii moom ngay moom ngay saafara fii ci barab bi. loolu ci kattanu suñu borom ñu ngi koy saafaraa ci lixlaas. cey. xam nga dañu ne lam yalit mm-hmm. jurul kenn moom yàlla waaw moom la. wala mu yiw kenn juru ko. Mm-hmm. d'accord. Mm-hmm. waaye nag kii am na koo xam ne dañ koo jur te bëgg a nag. yàlla suñu borom subhanahu wa taala. damay junj nag. <laughs> lam yalit jurul kenn moom yàlla. wala mu yu la te kenn juru ko nit ñëw ñi te ñëw ci yow ni man kat wax di yàlla damaa bëgg a jur damaa bëgg am doom mhm. secret baa ngi foofu léegi looy dugal kooku sirru la du ma ko yaatu <laughs> balaa yi gars yi di ko di ko barkeeloo <laughs> kon secret boobu mhm. dañ ci defal nit mhm. ba yàlla dogal insha allah su dee suñu borom dogal na mu war a am doom ndax itam ñun ñu mayee doom yàllaa koy maye dañuy ñaan yàlla yaay mayee may ko kon ay ñaankat lañ voilà macha allah jërëjëf kon mu ngi noonu mel na ne yaatal na point boobu Euh, di ñaan rek suñu borom bolem ko xamantene ni satank ñew na ba ci barab bi mhm. nga amé fi li nga xamantene ni kat mo la taxoon ñew mhm. euh ba damay dikkat ak yow serigne Abdoulaye sen mhm. mu melne ndaw ñi songu nañ gal gi songu nañ yi nga xamantene ni moy barab yi nga xamantene dafa yaakaaru te ñu yaakaar ne ku fa dem suñu borom defal la sutura euh, barab yoy nak lañ fay sako rek moy am am Mhm. ndax yooyu it bokk na ci say ñaan mhm. nga ñaanal nit ki mhm. ba mu am lu mel ne bayre wala ak ubbeeku wala ak yaatal ci li nga xamante ne nii moom mooy ab liggéeyam sëñ Ablaye muy lu am solo loo xam ni ñu ngi masawu mhm. képp koo xam ne da nga am ndaw loo xam ne ndeysaan des na ci gaal yooyu nga xam ni mhm. ndeysaan tuut tànk yi ca soobu woon mhm. demoon daani dool rek a taxoon ñu jóg ba suñu borom ñëw ak dogalam ñu ngi jaale ñëpp di ñaan suñu borom ñi ci euh, euh, euh, génn àdduna suñu borom jéggal leen bi jaxa rasulillah am ñu koy tuddee xaru waaye tuddee wu ma ko xaru ndax xaru da ngay dee nga dem sabablu pour dee loolu mooy xaru waaye suñu wóor ni ñi doon dem su leen wóor dañuy dee kenn du ci dem kon loolu moom du xaru yal na yàlla jéggal leen yaa rabbi li ci dooleeku nag mooy li nga wax mooy ñaanal nit ki ba mu ubbeeku mu yëg ni la fi nekkoon nekkatu fi tijjeeku naa moo xam bayre la mu bare mu ci mën a doon moo xam bayre mbooloo la moo xam bayre ubbeeku ngir fa ngay liggéeyu la moo xam lu mu ci mën a doon incha allahu dañ koy may sax ñin nit ñi ñoo xam ne mën nañ bind jël leen ko ndax itam dañuy bëgg émission yu mel nii ngeen di ci jëriñu su ngeen demee sortu juma waaye na bis ajuma ngeen koy bind da ngeen dem wa ijaara aw tijaratan aw lahwan infadu ilayha wa ijara aw tijara aw lahwan infadu ilayha foofu ngeen di yem ni ko juróom-ñaari yoon def ci parfum di ko diwoo maanaam saa soo xëyee dina tax nit ci jublu la lool waaye dina tax itam loo jaar mu jaar waaw sëñ Ablaye man man man man man damaa yéemu nga lan moo tax ma yéemu maanaam eh, gis nga lii nga def nii bariwul ñi koy def wala boog buñ koy def eh, amaana da nga ciy ñàkk xaalis bu baree baree bari bari ndax li ñuy wax ne secret lu làqu la Mm-hmm. lii nga feeñal ko nii. Mm-hmm. lan moo tax nga feeñal ko nii ban yéene nga am ci doomu aadama yi ba tax nga feeñal lu mel nii. Baye Dame da nga wax lu am solo Baye Dame. Mm-hmm. xam nga ñun itam business suñ wala astafurlah. dëgg ma baatu franche mais li ma bëgg a wax ne mooy ñun. ay jullit lañ yoo xam ne du caagin nañ fee nekk rek. di di di wax waxi ndax saxandam wala lu ñuy wax teguñ ko ci xam-xam. mais am nañu ne lool ci bindeefu yàlla yi. am nañ ñewante lool ci ña nga xam ndeysaan. jom ful ak fayda mu ci ñoom bu fees del mais xamuñ fu ñuy jëm. xamuñ fu ñu teg seen tànk mbir métti na ci ñoom mm-hmm. te du ñu sàcc du ñu fen du ñu def naka sudul noonu ñooñu ne day day am solo lool ñun ñu jox leen loxo mm-hmm. teg leen ci yoon woo xam ne ndeysaan dañ ci mën a mm-hmm. moo tax nit ñi bëgg a baax yu mel nii te dina tax itam émission yu mel nii ñu di ko bàyyi bu baax te xam ni njëriñ lay doon ñeel leen jërëjëf sëriñ Abdoulahi euh, ci lu am solo loolu mu mel ne ni ma la ko waxee rek bariwul ñuy def lu mel ni seen émission ba noppi di maye lu mel nii te li ko waral mooy li nga wax rek muy euh, suñu borom yërmande gi nga xamante ne am na ko ci jaam yi mm-hmm. ñenn ci ay jaamam buñ koy doxal it mm-hmm. ñu ngi koy roye suñu borom rek mm-hmm. kon yàlla na suñu borom dafa la ci tawféex ma lay dellu di la laajaat it sëñ Ablaye ci wàllu jëflante bi ndax léeg-léeg mën nga mel ne man poos bi woyof lool nga am loo xamante ni it mu ngi ci yow te boo sañoon tàqalikook moom wala nga am loo bëgg a ñoddi bëgg mu dikk ndax jëflante bi sa digganteeg ñi nga xamante ne ñu ngi fiy ñëw. Mhm. ndax jëflante bi it nekkul lu dëgër loo xamante ne. Mhm. wala lu jafe loo xamante ne nit ki bu fi bëggoon a ñëw. Mhm. mën naa xaw a yokkot wala mu am nu mu nu mu ñëwee. bàyyi daam lu am solo nga wax. bariwaa na ñoo man maay mara boo xam ne. jafe na lool nga woo ma doo ma jot. léeg nag man ne ci liggéey bi xat lool. sama ndaw yi. Euh, ñooy féetewoo téléphone bi mais la ci ëpp su ma feexee rek mhm. maa jël téléphone bi ndax nit ki am aajoom mhm. soxla signe bi mhm. warul mën a jafe-jafe goo xam ne wax dëgg yàlla day dem ba euh, euh, galeeru maanaam li ma bëgg a wax mooy nit ki soxla la am aajoom urgent di la woo ñetti fan ñeenti fan mënu la jot dafa métti moo tax dañuy bëgg ñaari ku ñu woo jotoo ñu itam ci numéro boobu da ngay envoyé vocal rek dinañ ko lire te dinañ la tontu teg la ci yoon woo xam ne tabarakallah ndax li la nga ma xat du mën a mën a wuyu mhm. kon loolu nekk na loo xam itam euh, lu xaw kii mais jëflante boobu itam mhm. nit ki su fekkee dafa ñëw dañu xool nu mu ko mane mhm. lu fi ne nag am na prix waaye nag léegi nu ko mane su dee koo xam ne dafa feebar dañu xool nuñ koy nuñ koy dimbalee ba mu kii su dee koo xam ne aajooy boppam nag nag nga xam ne dara jotu ko moom mu ngi sagom kooku moom dañ <laughs> kooku du yomb moom <laughs> ndax kooku mu ngi mais koo xam ne dafa sonn malaat la ñëw dañu xool ndeysaan nuñ koy xettalee avant tout ndeysaan jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye Sène kon ñu fàttali leen rek ñu ngeek euh, suñu jëwrin suñu kilifa suñu sëriñ sëriñ Abdoulaye seen nekk fii ci euh, jokkul xeer ci wetu jumaa ji ñuy wax ne képp ku fiy ñëw rek boo ñëwee ba ci jumaa ji boo ko woowee ci numéro boobu nga xam ne mu ngi affiché si écran bi rek bu boobaa di nga mën a jokkoo moom te incha allah boo jokkook moom rek di nga mën a fexe ba jëflanteeg moom boo jëflanteeg moom tamit ci kàttanu suñu borom di nga fi amee li nga xamante ne ni moom moo la fi tax a ñëw kon ba tey mbokk yi dañuy delluwaat régi incha allahu yi bu ñu dellu si waatee nag dëggi-dëggi waxtaan bi nag yaakaar naa ne mu ngi feeñee fii ndax lu mel ne rab nga xamante ne sonal na jaamu yàlla yi tax na sëñ bi mboolem noo meloon ci ab taar léeg-léeg wala ci dayo wala ci wàccuwaay mën na laa ganese ba yàq sa àdduna loolu lépp nag bu ñu demee régie ba ñëw fas nañ ko faram-fàccee yaatal ko ak Serigne Abdoulaye Sène kon mbokk yi ñu dem régie ñëwaat incha allahu rabbi. da ngay yaakaaroon daal soo ñëwee du la mën a dara daal lakk leen yaram bi allah la Laklin Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Laklin Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Lucky Bobby, Lak Lak Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, kon jerejeuf wa régie ci élément bu am solo bobu nga xamantene indi len nga ñu kon batay mbokk yi ñu ngi fi ci tokul xeer and ak goor yalla bi ñuy wax di yëngu ci walum fajum ciosan waaye nag di sant suñu borom bu baax a baax a baax bi ñu mayee ñu jaxasoo ak ñoom ndax ni mu tàmbalee ci ab waxam rek day daral suñu xel ñun ñi nga xamante ne ñoo koy wane ndax bu dee lu baax boo ko yaatalee <coughs> saay bu yëwu àgg rek maanaam am na loo xamante ne daf lay fekk si waaye bu dee safaan it mbokk yi noonu la kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax sëñ Abdoulaye Sène di fàttali it ay numéram yi nga xamante ne mën nga ko ci jotee incha allahu rabbi muy 77 112 16 27 77 112 16 27 soo ko waay ci numéro boobu di nga ko jot wala nga woo ko ci tigo bi 76 226. 35 35 35 soo ko woowee ci numéro yooyu incha allahu rabbi di nga ko jot bu ko defee di nga mën a jëflante ak moom mbokk yi comme ni ma ko junjee sànq. Mhm. ñu war a jublu nag ci lu am solo. Mhm. waaye nag di lu mm-hmm. doy waar mm-hmm. waaye man ba ma waxee ak moom mm-hmm. man daf maa wax ne ma man li ma yéem mooy moom loolu kenn mënu ko ci wàllum fajum rab loolu nag bariwul ñi la koy wax ma bëgg la laaj loolu sëñ Abdoulaye Sène fan nga teg ne yow kenn mënu la ci wàllum rab ba tax tey jii euh, nga wax wax jooju euh, Baye Dame su doon mbiru làmb yi la. Hmm. am na façon bàkk boo xam ne suñ ko bokk bàkkoo. Hmm. ci lay daanaka sotteekoo ay bagages yoo xam ne ku xool xam ni yaram yi tàng na. ndeysaan li fi jot a jaar dafa mel ni bàkk yu ndaw yi la rek. Ah, ndeysaan waaw waaye yaa ngi doog a laaj laal nag euh, day dëppuli. Hmm. Euh, bay daam. Euh, gisuma ku ma ci faj rab. gis te moom sama bët tëggeegul ci laa wax man ci faj rab. leer na. gisuma ko laa wax waxuma amul dama ne gisuma koo xam ne moom man ci faj rab. Hmm? leer na bay daam euh, hmm. muy lu euh, mataw leeral loo xam ni hmm. euh, ndok bi nga jaaree fi nga jaar doog a mujjee lii ndax soo ci njëkkoon émission bi rek ci lay jeexee ndax moo tax ma ne la kenn manuma ci ndax dama ci xam yoo xam ni du ma faral di dëgg gaay di ko waxtaane te lu mënta waxtaane la ngir nit ñi mën a waajal seen bopp ci anam yu bari yoo xam ni dina tax ñu man cee mucc waaye ba léegi du ma gis ñu wax ci wala boog ñu néew ñoo ciy wax bari naa ne ñoo xam ni itam Mm-hmm. Euh, fa ñu yaakaar ni fa la ñuy fajoo mm-hmm. au contraire sax fa la ñuy duy ay rab ba fees dal ba far euh, euh, ñu war dal di sànku mm-hmm. ci anam yu fasantikoo nag ñun nag yàlla dogal ñu ñu wàccilu ci suñu borom subhanahu wa sukkandiku ci suñu borom ba xam ci yoo xam ni dem nañ ba téye ko ni rab daal ñoo ci man faj rab ñoo ci man <laughs> <laughs> waaw waaw waaw ah. kon daal mbokk muy noonu kon ñun ñëpp ñoo ko bokk déggandoo. léegi nag sëñ Ablaye. muy wàllum rab. muy lu yéeme. di lu doy waar. di loo xamante ne sëñ bi mën naa sànq. dundug doom aadama. ndax nit. bu demee ba am fu mu àgg ci wàllum rab nga xamante ne dem na ba ay ñi ko jege ñoon ñëpp. dem sax ba ah, yaakaaram. denc moom. ndax kooku tey buñ la ko indilee yaakaar nañ ne kooku mën naa dellusiwaat ci sagoom. hasbi allah wa nimal ci ndax avant tout mhm. dañuy waklu ci suñu borom subhanahu wa taala wàkkalu gu ñu wàkkalu ci mom nak foofu la ñuy waxee ña ñuy xam fuñuy waxe bu baax ndax ana ana laysa huwa mëna mëna a dañu mhm. na dédd yow dañ ko ji kon luñ ci jublu mooy dañ ko xam xam go xam sukkandiku ci suñu borom subhanahu wa taala da ci def resultat yo xamne mhm. euh jéggi ndayu bari bare na dañ koy Mhm. ci euh, réseaux sociaux yi internet bi maanaam mu siw lool. Mhm. benn waay jaar ci moom san noon lool ñëw ci ñun suñu borom dogal lépp saafaru. Mhm. waaye li nga xam nii muy lu am solo muy euh, euh, koo xam ne rab gañe na ko ba ay mbokkam. ñàkk ci yaakaar. kooku laa soxla ñooñu laa bëggoon sax ñu dama ko indil. ñooñu nga xam ne leen woon lii rab la moom waaye ñàkk nañ ci ñoom ya ñooñu laa soxla bàyyi daal mais ñoo xam ne ay dañuy génte génte yu jaxasoo yooyu moom daanaka kii la rek loolu daanaka kii mais ñoo xam ne dañoo dem ba xam ni rab bi fat na leen ndax am na couple rab yoo xam ne man maanaam mm-hmm. famille rab day dugg ci biir nit mm-hmm. yii nekk ci mbagg mi yii mm-hmm. nekk ci biir bi yii nekk ci dënn bi yii nag dañoo feetoo ci fat rek fan ko su ko defee nag am rab yoo xam day muucu deretu nit ki man na tax muy niir su ko defee dootul am kattan damay faj koo xam si dafa dañoo ne dafa am cancer mu ñëw fii ñu mocc ko mu woccu mu ne mu yëgatuma dara te fekk du dara du benn cancer mais rab yi la fekk of nañ ko tooke boo xam ne loolu mooy def zaaru pat dem ba wër fois bi nit ki suy noyyi day mel ni asma xërr xërr te fekk du benn asma mais rabu seet yi ñoo ko gañ moo tax ma ne ñooñu léeg-léeg nga mocc nit Mhm. su ngeen xoolee sama kii da ngeen ci gis koo xam ne dama ko mhm. mocc muy mhm. génne yoo xam ne da dee déedéet su paree naan dara dara dara sëñ lan mooy sëriñ sekkaram sëñ Ablaye ba ku ñëw fii léeg-léeg am na ay éléments yu ma gis damay gis ku ñu indi koo xamante ne daanaka dañ koy bàyyi nga am noo jëflanteeg moom rek diir bu gàtt rek mu mu mu yaram bi tàmbale di woyof lan mooy secret sëriñ Abdoulaye wa man yatawakkal ala Allah fa huwa Mm-hmm. waaklu suñu borom rek suñu borom lo rek la ndax suñu borom kat in kullu nafsin la ma alayha hafiz mm-hmm. su ma paree ci loolu nag mm-hmm. dafa am lu may sukkandiku ndax comme kaccooru sayaatin mooy yakalenta hajok. yi yàqaleen tax a ñun itam defar moo ñu tax a jóg suñu borom day ànd ak ñun te suñu borom moo ñëwee kaccoor yii di sayaatin yi bon yi na ngeen leen rey maanaam na ngeen ndax seen lu solo la ci kan ci ko ci alazina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون سبيل تقول فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا ci loolu la ñuy sukkandiku nag dal di leen duma duma yu métti yoo xam ne waaye duñu yëg duñu duñu duñu tiitaru ci loolu ndax dañu xam ni mbiru suñu borom subhanahu wa taala la moo tax ma bëggoon ña nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu fajrab mhm. ñu sutantal alxuraan bu baax sukkandiku ci alxuraan bu baax te xam ni moo mën a fajrab mhm. moo tax ma ni euh, sama bët daal tëggoogul daal indil leen ma daal ko xam ne moo mën ci fajrab daal gisaguma ko ndeysaan kon daal mbokk yi muy noonu man moom <laughs> tey moom damaa yéemu ndax mhm. euh, xeeti engagement yi ak xeeti wane ne daal moom fii ku fi rab indi te ñu bir fii moom sawar bi nga xamante ne nii rab boo koy joxe moo la fi andi. Mhm. kon booy ñibbi. Mhm. bu fekkoon ne dañ laa takk ba ngay ñëw boo ñibbi kon mel na ne yow yaay doxal sa bopp dem. bari na fi. Mhm. yeew nañ fi nit. ñu day doore. suñu borom suturaal ma. muy ñibbi ànd ak mbokkam. nit na fi mënatul gis. suñu borom suturaal ma muy xoole nit ñëw na fi mënatul wax. suñu borom suturaal ma. waaye nag am na yu bëri yoo wax sànq. ay murit yooyu. mais taxuma ne kenn mënuma ci lu tax ndax ña faje gisuma leen. mais comme gis naa ñoo xam dañu ne ah man kat ci diwlaa jaar ci faj rab diw laa jaar mujjee ci man ma faj leen ci kattanu suñu borom moo tax ma ne gisuma ku ma ci man ci faj rab <laughs> danga nga wax ji voilà moo tax kon euh, muy lu am solo loo xam ni euh, dëgg dëgg daal mm-hmm. doy na waar moom rab cey kon nag mbokk yi mu ngi noonu euh, ñu ngi leen di wax ne ba léegi ñu ngi ànd ak Serigne Abdoulaye Sène al Ikhlas nekk fii ci jokkul xeer ci wetu jumaa ji soriwul dara nga mën ko woo ci numéro yi di 77 112 16 27 wala 76 226 35 35 boo jokkoog 256 35 35 mu ngoog bu ko defee mhm. nga mën a jokkook moom incha allahu yi jëflanteek moom mhm. yii mu lay wax yëpp mhm. bu soobee yàlla lenn lu si nekk rek am na ñum si jëflanteel waaye nag suñ borom suturaal na ko ci waaye nag sëñ Ablaye fi may ñëwaateeg yow léeg-léeg rab dina jàpp nit jàpp ko jàpp ko jàpp ko ba kooku dem mu àndaat ak ay doomam walla ay sëtam jàppaat ko ndax yow ki ngay faj da nga koy faj mu tàqalikook moom mhm. wala mën nañ koo faj mu toxoo ci moom dem ci keneen ci njaboot gi ndax léeg-léeg man loolu dama koy gis question yu neex nga may wax Baye Dame mhm. lii soo ko njëkkee woon moom macha allah mhm. Baye Dame lu am solo nga wax te day am itam euh, di nga faj rab génnee ko ci nit mu daw dugg ci keneen moo xam ci famille bi wala feneen loolu nag ba tax na ñaankat bi am na yoo xam ne su jëlee engagement ci loolu mën na wax lu amut moom la koy war rek mooy fexe ba kii fi ne daal mu gindi ko ci moom waaye su koy dindi ci moom su dee jëflante nag rab bi na ko digal ni tuubal génn ci lii ndax lii baaxul suba nag man rab bi mën a doon ku jullite koo xam ne day tënku ci loolu am na ci yoo xam ne lam la wax itam ay nar la day naan tuub naa nangam génnaa dugaat mais da nga insister yow mii ñaan itam ci rek na ko bàyyi su ko defee di ci am ndam mu am ci yoo xam ne nag ceyaatin kese mooy ne ci yaram kooku mu amul tuubloo da ngay génne ci yaram yi rek na bàyyi ndax nit ki na ko bàyyi na ko bàyyi dem kooku mën na ko tuubloo ndax dalay wax ne man seytaane la man du ma tuub man soxla ma yooyu tey itam même su dee jinne boo xam ne naan jinne laa mais pare wu pour tuub دوكو فرسي لا اكره في دين طب انه زلمه غي فمن ياخذ بالتاغوت ويقول فقط استمسك بروت رشقه لن في سام الله ولو شامل عليم كون دوني فرسي كن ديني دنجكاي دنجي دنجي فخ نمو генي تي نيت بايكو با نيت كي ديلوات تي اكتيفيتيم موتاخ نون نون لا ني ديف سارك نتا دينا نيوات ولا دو نيوات لولو موم يينن بير لاي دون جوري جاف سري عبد الله لغي نك سيني عبد الله في ماي نيو موي أه، ا نكا دي ديف با جاخاسوك ليغا ولا dafa am barab yoo xamante ne yaa leen di fekk si walla tey dafa am loo xamante ne da koy jëf wala nga def ko ba tax tey jii ñooñu dugg la walla ñu song la walla ñu jaxasoo ak yow sëñ Abdoulaye. Euh, lu am solo la am na ñoo xam ne ñoo sabab lu tax rab dugg leen te ñooy jëf-jëf joo xam ne daanaka méngoowul ak diin islam. Mhm. wala boog ñu bàyyi seen euh, euh, seen yoon. Mhm. te mooy di faral di muslu. Mhm. di rawatina. ñaan googu nga xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam daana ko joxe mooy bismillahi lazi laa yaduru maa ismi seynu fil ardi wala fi sama wa huwa shamil alim maa ngi koy jox ñëpp ñu ñuy seetaan nga xam ne ku koy faral di wax rabu shayatin yéeg njabar ak yëpp du la mën a dara su ko defee nag kon am na ñoo xam ni seen càggantee tax rab dugg leen mu am ñoo xam ne nag attention de ay julit kamaal lañ dañuy jaamu yàlla di woor di def lu ne waaye suñu borom nattu na leen rab kon am na ñuy wax ni ku saggan rek la rab di dugg erreur la. Mhm. man faj naa ñoo xam ne bind nañ kaamil ñaari yoon ay taalibi lañ rab di leen daane. est que hmm, kooku nag ay jàmbaar lañ ci jaamu yàlla xanaa. Mhm. kon natu lay doon boo xam ne su la arrivé su la gaaralee. Mhm. Euh, rek gaaral na la kon bu ñu jàpp ni euh, ñi ñi nga xam ne daal dañoo sàggan rek la rab di dugg gis nga kàccoor yi nga xam ne soo ñooy def lu bon ñaari du ñu daanu rab. ñu bon dëgg ndax dañ lay wax ñun ñu baax ñu la ñuy wër. kon bari na ci yoo xam ne. Mhm. Euh, nañ koy waxe demul noonu. Mhm. Mhm. jërëjëf sëriñ Abdoulaye si tontu ba am solo bi beneen bi may ñëw it. muy wàllum couple. di borom kër. ak soxnaam. léeg-léeg soxna si doon ku jàmbar bokk ci askan wu baax. doon it ku ñu am yaakaar. waaye mu dugg ci sëy di def yoo xamante ne. ku ko ci fekk rek yedd ko. mu mel ne am na lu koy def loo ndax loolu it am na fii ci barab bi yoo xamante ne nii bu ci tegtaloo wala nga defal ko ay ñaan suñu borom mën na koo dimbali ba mu amaat li nga xamante ne moom la bëgg ci ab sëyam ba lépp taw fexe loolu am na fi loolu yëpp euh, euh, la koy saafara rek lay tax mu delluwaat ci ay activité mm-hmm. mooy dinil ko la nga xam ne moo koy tuuse ba muy def loolu rek te mm-hmm. mooy rab bi mm-hmm. mbir mi mbir mi daal mooy fexe ba rab bi dañ ci moom su rab bi dañee ci moom mhm. moo xam da doon mer mhm. moo xam da doon joteeg waa kër mhm. moo xam borom kër la doon joteel moo xam da daan tiit ci ay moo xam da daan énervé wu ko def dara moo xam dafa am lu doon wax ci nopp yi moo xam moo xam lu ñu ci mën a doon léegi ci moom rek dañ na ci moom am na ñoo xam ne nag rab bi dafa yàgg ci ñoom amagul jë jëkkër wala bu mu amagul soxna la rab bi ne ci moom mu dem ba am euh, ba am borom kër wala am soxna nag léegi rab bi doo ko déclenché nag di ko defloo yoo xam ne jéggi na day su borom këram teeru rek mën na jàpp ni sa soxnaam si day njaaloo mm. wala day def leen te fekk du loolu mm-hmm. di la fiir lool lool nag mm-hmm. waaw ndaw saa ngi nii dafa am far wala mm-hmm. def sa xel ni sa borom kër dafa am ay gel yu muy waxal te fekk loolu dara amu ci mën a dem sax ba dugg xale bu jigéen bi wala xale bu góor bi dugg la koo xam ne dafa am faru rab wala coru rab lu ma ta bàyyi xel la nag lii ma wax nii ndax am na sëy yoo xam ne maa ko ci defar ci lu mel nii ndaw xale bu jigéen bii rab dugg dafa am rab Mm-hmm. rab bi dugg ko mu composé numéro borom këram borom këram ne woo fii. Mm-hmm. léegi voix bi voix góor lay def ndax rab bi moo ko dugg. Mm-hmm. ne ko soxna si fii laay fanaan tey. wax a wax wax ba pare. daal di génne bari bu muy génn dafa kii bi vocal bi. léegi nag borom këram daal di woote. jotaat ndaw si ndaw si fudd ne dama doon nelaw mu ne ko yow nelaw yaa mën a def nangam yow nga woo a léegi ne ma nangam kan moo nekkal foofu mu ne nekkuma kenn mu ne déedéet waxoo dëgg <laughs> cooli ne kur te wallahi al azim summa wallahi al azim rabu shiyaatin moo def loolu defoon naa ci sëy yu bëri ah. Hmm. dem ba dig ñu affaire bi doog a leer. Hmm. kon yooyu bëri na ci yoo xam ne nañ def attention. Hmm. soxna si def na nii wala jot nga foog nga ne ne non non non nañ ci def ndànk rek. nañ ci def ndànk lu mat a bàyyi xel la. moo tax da ngeen di faral di non ah, man moom foofu laay dugg ndax euh, suñuy at taxu koo mage lool lool. te dañuy jaxasoo tànk yi. te ñu xam ne. am na foo xamante ne seen kàddu jotewu fa mhm. te ñun ñu jàpp ne ñun ñoo leen fa war a jotal seen kàddu mhm. suñuy jaxasoog ñu mel ne yéen mhm. dana tax ñoom seen kàddu ñu mën koo yóbbaale bu ko defee yii dafa am solo ngir ñu koy bàyyi xel ndax amaana lii nga wax nii man mii sax gan la ci man ak ñeneen ñu mel ne man te it dañ ñuy dénk ay doomi jàmbur ñu yor leen yor kon lii buñ ko dee bàyyi xel suñu borom mën nañoo dimbali bu baax a baax a baax bu bu bu yu mel ni amee rek ñu mën cee dem ak dal kon sëñ laay mhm. lan nga xalaatoon mhm. ci luñ la war a laaj mhm. te suñuy laaj àggul foofu te fekk yow bëggoon nga ko leeral mooy nu ñuy def ba mucc ci yàqu-yàqu yi waaye nu ñuy def itam ba mën a mucc ci tolluwaay jamono ji nga xam ni jamono yàqante la jamono yi rambaaj jamono yi yàq nit ki te de cotewu leen dara jamono yi noonoo jamono yi euh, tumuranke boo xam ni manam jikko yi sell yi ñu xamoon yépp mhm. léegi dañ koo sanni mhm. te mooy ñi tedd ñu ku mel ci Ahmadou Bamba ku ci mel ni mhm. alaaji Malick ku ci mel ni Baye Laay ku ci mel ni euh, euh, alaaji Abdoulahi Niass lañ fi indi woon lu baax la ngele bu ñu kenn looloo la dañuy jox leneen loo xam ni xamuñ fu mu jógee xamuñ lu mu doon ñooñu lañ indi woon diine ju leer nañ la xaqiqa bu leer nañ la. Mm-hmm. nañ sukkandiku ci loota am yar ak teggin. Mm-hmm. te xam ne ndaw loo mën a doon koo mën a doon foo mën a bokk. te mm-hmm. la ngay jëf jëfee ko ci yar ak teggin. lang daan wut soo ko amee doo ko jëriñoo. fa kullu man raama itibaa bi ayrihi fa innahu yuhmal fawz wa intifa wa fi daari ayru kanzi warima i'taz bi zil azi li alhu munadul jinaan kam yuqawil jinaan kon yar ak tegin dal lay wote ñëpp jëme ci mhm. fu way mëna a ne ak ko mëna a doon ak foo mëna a toll mëna bok a mhm. dal moy lo xamni dal ma ngi wo ñëpp jëme ci mhm. sha allah serigne Abdullah sen ci kaddu yu am solo yi kon dañ lay bàyyi rek nga fatali mbokk yi fi nga xamanteni ni fofu nga nekk ci dëkk bi ak ku la bëgg jot fan lay jaar ba jot la ak it ndax liggey bi ban bes ak ban bes ngay euh, tambali liggey bi ak ban waxtu it nga xamante ne moom nga tënk ci wàllu wàcc bi. ñu ngi nuyoo ko ziyaara. waa Rufisque. nga xam ni samay mbokk yu baax lañ. ab dëkk soo demee ba ñu wóolu la ba may la fa soxna moom. ay lay nawloo nañ la ndax ku <laughs> di nuyoo ko ziyaara sama jawrin bi sama xarit. Abdoulahi Salaam. Euh, muy euh, ku am solo maanaam ku baax koo xam ni tam sama kii la. waaye noonu lay euh, nuyoo ko ziyaara mboolem. Euh, waa Rufisque yëpp rawatina seen bu am solo bi nga xam ne nu mu tëddi Galaxy TV nga xam ne ñu ngi seetaan mhm. ay émission yu am solo yoo xam ne mu ngi koy def di gindi nit ñi mhm. ba ñu xam fu ñuy teg seen tànk moo xam ci seen diine ak seen wér gu kon ñu ne di ñaanal suñu borom gan leen kawel euh, su ko defee noonu la ñuy def itam di leeral ñu ngi fii Tëngéej soo wàccee juuti Tëngéej bi rek da ngay woote ci numéro boobu mooy 77 112 27 76 256 35 35 su ko defee même soo ma jutul di nga jut sama ndaw loo xam ne dina la tegtal nga mën a ñëw fii après soriwul dara muy jumaay xeer mhm. lii mooy loo xam ne daal moom lañ leen leeral di jég lu baax mhm. lépp loo xam ne gis ngeen ko ci waxtaan bi muy lu mhm. jag nga xam loolu ko suñu yéene lu ngeen ci git itam muy safaan ngeen xam ne al insaanul kaamil amut ngeen jégal ñu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon mbokk yi ñu foofu rek lañuy ñuy wàccee suñuy kàddu ci lu am solo lii ñu leen indiloon tey di dox dox daje ci beneen barab incha allahu rabbi kon ñu nit ñu ngi wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.